alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala ashraf al anbiyahi muhammadin ibni abdallah wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain bokk jullit yi safoo seen uh, chaîne bii nga xam ni mooy uh, Kabir TV noo ngi leen di nuyu noo ngi leen di ziyaara noo ngi aan mbékki deen si waat ak yéen ci seen jotaay waxtaan yi nga xam ni islaam ak société daf leen ko fi jagleel ay bés bu ne ngeen ci ànd seen mbokk daara Mass Dieye ci waxukaay wi feggoo ci nag ak Serigne Mansour ci jàppandal ci wàllu xarala Mouhamadul Kabir di nga ko ñaanal yàlla di ko ziyaara mook ñi nga xam ni ñoom la feggool ànd ak ñoom ci jéem a jëmale réew mi kanam ci wàllu diine ji ak ci wàllu société bi tey nag sunu jotaay waxtaan yi ngi koy jagleel ci ay laaj yoo xam ni dafa ëlëm lenn bopp doomu aadama ñu bëgg koo xam muy différence yi am lan moo xaajatle yii di ay tur yi nuy di dégg ci diine jii di islaam lu mel ni aalim kan mooy aalim kan ak lan mooy ustaaz kan ak lan mooy imaam kan ak lan mooy ngay dégg ñuy wax cheikh cheikh nangam diw cheikh la waaw cheikh Mansour waaw <laughs> wala cheikh Papa Ndiaye sama wëlëre yooyu walla cheikh Makhtar Jaxate ñu ngi leen di nuyu leen ziyaara titre yooyu nag lañu ñu laaj tey ñu ubbi ci volet bu mag yu njëkk a waxtaane mooy ki ñu tuddee alim al alim diw alim la comme ni nga koy déggee ci sunu réew mi diw alim la alim alim mooy kan moom la tubaab di wax savant un savant un chercheur koo xam ni euh, titre bu màgg a màgg la làmboo bu particulier nag kawe lool Sénégal nag ci benn pàcc exemple mu ciy joxe mooy koo xam ne kenn du ko werante muy l'éminent professeur du savoir le temple du savoir fii ci Sénégal ñu koy wax Cheikh Anta Diop foo ko tuddee rek gars yi ne savant baa ngoog <laughs> boo demee université Cheikh Anta Diop am laboratoire bu ñuy wax carbone 14 ma nga nekk fële lang ak IFAN mook IFAN ñoo dend. laboratoire boobu am na lu ñuy tuddee carbone 14 gërëb la bu fa ne yaakaar naa ne àdduna wërngal këpp amul kuy def lu jëm ci wàllu physique wàlli mathématique dem ci wàllu neurosciences yi te dégguloo ñuy wax sunu jëmm jooju ñuy wax Cheikh Anta Diop. dama joxe rek exemple ci wàllu woowu ci wàllu diine ji di nga dégg ñuy wax xaalima jaxate kala boo demee fii ci Cheikh Anta fii am na benn auditorium mu tudd auditorium xaali Amar Fall <laughs> ci wàllu woowu te ñooñu non seulement c'est des hommes religieux waaye c'est des hommes de science ndax al alim dafa lëkkaloo ak xeeti xam-xam de pointe waaw ñooñu dañuy dem ba ci wàlli diine ji itam ñu làmboo xeeti xam-xam yoo xam ni dafa lëkkaloo xam-xamu ragal yàlla lu ci wàllu diine bu ñu déggee ni nit aalim la ci diine islam mooy kii ay xam-xamam méngoo cent pour cent ak njàngale yonent bi ay salam ak njàngale salaf ya salaf salafu salaf léeg nag salafu salaf nit am problème fii ci Sénégal ak salaf ndax léeg nga dégg ñooñu ñuy tuddee ibaadu rahmaan yeeg yooyu di am fu ñuy jaxasoog gaañ ci baatu salaf <laughs> la bon euh, bu ñu demee ci suratul euh, suratul boroom baa ngi mandargaal foofu kan mooy aalim mu ne innama yaxsha innama yaxsha allah min ibaadi il ulama yàlla moo wax de du ay wolof ñoo wax wala ay yeneen raas nee na ñi nga xam ni ñooy ay alima ki ulama ki savant mooy ñi nga xam ni ca dëggi dëgg mooy ñi ragal yàlla ña ragal yàlla dëgg dëgg ñooñu ñooy ay ulama des savants kan mooy borom xam-xam nag ndax ñii ñu ko jàppee ñun suñu réew mi am déet inama yaxsha allaha min ibadihil ulama waxtaan wi nag tey ñu ngi ko jagleel laaj wi nga xam ni nit day laaj yooyu différence mooy lan nuy tàmbali ak yéen nag ci tey al ilm al alim muy un savant ci l'islam lan mooy savant borom bi ne savant yi di mooy ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ibaadil ulama jaam yi nga xam ni danoo am ab ragal yàlla njëkk li jiitu ci ñoom seen particularité mooy ragal yàlla wax na leen ko boole si nag di sàkku xam-xam ulama day sàkku xam-xam bu ko sàkkoo ba am ko nag di ko jëfe loolu def ko yitteem maanaam jëfee xam-xam bi nekk yitteem la recherche du savoir fexe doon nag à travers njàngam yooyu moom mu jàng moom ulama bi nekk un expert waaw un expert mooy ku ku xarañ ku am xarañteefu mën a xam xeeti atte yi ne ci alxuraanul karim yëpp ak jàngale yi nga xam ne moom la yoon ci Yàlla ba sosalam jàngale un savant dafay xam yooyu maanaam li ñuy wax les fondamentaux da koy xam xam itam base phonétique muy jàng arab waaw savant dafay xam lu borom wax ca sootul faatiri nee na ñi nga xam ni ñooy boroom xam-xam yi mooy jaamam yi ragal yàlla njëkk nag li jiitu ci mbir moomu ragal yàlla yooyu mooy sàkku xam-xam di ko jëfee xam-xam nekk seen yitte la recherche du savoir. Vu la science, al-hilm. fexe nag doon à travers njàngam yooyu moom imaam euh, borom xam-xam boobule nekk un expert expert mooy ku xam xarañteefu mën a xam xeeti atte yi am ci alquran bi baxara ba naasi waaye itam bépp xeetu njàngalewu hadis la yonent bi sax jàngale ko ak bépp xeetu njàngale yi nga xam ni moom la ña toppoon ca ña toppoon yonent bi tegoon ci kaw ñu xam ko ànd ci mën a def seen ay différence xam nag les fondamentaux saxuwaayu kàllaamay arab kàllaamay arab bii la langue arab yow bii nga xam ne da nga ni borom xam-xamu diini islam nga faw nga góorgóorlu ci bari loolu nag ci sunu réew bi ñoo xam ni nee na ñooy ay boroom xam-xam lañu dégguñu arab boo leen bindee sax bind leen sax lettre en arabe dañuy woo leen ko jàngal wala mënuñu soxla liir te nee na ñooy ay ali ay boroom xam-xam lañu leen koy xoole bokk. ndax boo gisee sunu boroom jël ay kàddoom daal koy jaarale ci làkk woowu làkk arab loolu firnde la ndax ni nga mën a déggee ñu mën la expliquer ci arab bépp xeetu njàng ci beneen làkk boo ko jàngee doo dem da taxaw moo tax boroom bi wax mu ne inna nahnu nazalna nazal qur'ana arabiyan ngir ngeen di réfléchir yow bi nga xam ne da nga bëgg a nekk euh, alim ala faw nga am bokk ay notion yu dëgër ci làkk arab ngir ngeen mën a am xel mën a jàng atte ndax di nga yegg ci foo xam ni jurisprudence islamique yaatu na xeetu yaatuwaay woo xam ni boo déggulee arab sax doo mën a jàng risaala ba mën a comprendre fondamentaux yi ñu àttee nga nar a nag indi problème ci société bi te yow nee nga yow alim nga moom mi woowee alim moom itam le savant day am ay xibaar am ay jeexital ak njàngat ci wax yi ak jëf yi waa salafu salaf muy ña jiitu mag ña mag ña mu doon lu am solo nag Sénégal nag bu tuddee mbiri mag tollu ñu ne mag ñi ñoo yàq réew bi léegi dégg sax ku ne mag ñee yàq réew bi waaw léeg nga dégg télé wala rajo ñu ne mag ñi ñoo yàq réew bi waaye mag ñooñu ñoom dañoo tënku woon ci waxu salafi waxi salafi magu Sénégal yi amul kenn ku ci tënku ci say waxi bopp ak say xam-xami bopp yëpp ñoo nga tënku ci ñi nga xam ne ñooy les devanciers les prédécesseurs salala Sénégal yi nga xam ni mag moo fi gis fii ci réew mi moom mi ngi toppoon jàngale ak yi nga xam ne moom la fi salaf bàyyi woon Sénégal wax naa leen nii mooy première pays en Afrique bu mës a am bu njëkk am état islamique boo jàngee le royaume du Tekruur képp ku jàngoon école primaire xam nga la mooy le royaume du Tekruur boo ko mosul waan tari duñ la jox note ku ne jàng na waar jaabi nga xam ni moo njëkk a dugal lislaam fii ci Sénégal yaatal ko waar jaabi waaw waar jaabi njaay alpulaar la woon moo tax tukulóor bu njëkk ba euh, dañ daan am xam-xam ndax Fuuta ñu amoon xam-xam rek fa dëkkoon seen empire seen dëkk empire la woon waaw le Fuuta Thierno Souleymane Baal foog naa ne ku ko déglu xam nga ko waaw ah, mooy boroom la révolution Torodo de 1776 waaw ah, les Almaami ñooñu ñëpp ak euh, Bokar euh, Abdul Kader Kan waaw ah, mbooloo moomu nu mu ndeysaan waaw les Almaami ñooñu ñëpp seen référence moo doon salafu salafi jamonoy dox ba tey ci ña toppoon ci xam-xam maa ngi ci science nag maa ci mbiri les savants. ndax ngir nga mën a teg xam-xam woowu nekk savant ala kulli alin faw nga tënku yow itam sa dund ci salaf yooyu la El Hadj Omar Foutiyou moom itam kenn du ko laajte kenn du ko jaawatle moom itam ci salaf yooyu la tënku woon Maba Jaxu ci la tënku woon Limaamu Laay fa la tënku woon yooyu damay topp nag benn ordre chronologique moo tax may waxee noonu ak ñeneen Moussa Camara Serigne Moussa Camara Saloum hmm. ca ñooñu la ñu tënku woon ci salaf ya waaw maam Alpha ci ñooñu la ñu tënku ci salaf sunu maam Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul ñoom itam ci salaafu salaaf la ñu tënk woon ndax ñooñu ay boroom xam-xam la woon. ñoom ñooñee la ñu tënk woon Cheikh ci ñoom ñooñee la ñu tënk woon tënku rek ndax ñooñu ay borom xam-xam woon ndax ngir nga mën a nekk un savant. li ñuy wax aalim faw nga méngale sa dund ak ñooñu nga xam ni seen dund yëpp dañu ko jagleeloon njàng ak l'enseignement ci ni nga xam ne la ko sunu borom tërale léegi nag léeg ñu jiñ nit ci ne diw dey moom savant la waaw muy benn xeeti xam-xam bu yéeme yéeme yéeme yéeme yéeme bon mag ñi bu kenn wax ni dañoo yàq réew bi ndax léeg nga dégg ci ne ku ne mag ña waaw mag ña waaw ba tey mag ñi waaye ñu tënku ci seen liggéey ak seen jàngale moom ñoom ñëpp tegu nañu fi war a tegu nekk ci yoon. bon nit bokk yi mënu la dem te xam-xam amul dund day impossible ndax kat la science. tubaab nee na est la base de tous les développements al moo doon tey li nga xam ni moo doon leen indiloon ci différence yooyu nuy nemmeeku am ñu ko laaj ne lan mooy yii nga xam ni ay tur la yu ngay dégg ci diine ji kii xaalim la muy un savant nga dégg ñu ne alxalaama un érudit koo xam ne moom euh, leneen la itam wala ñu ne diw dey oustaz la wala diw imam la wala nga dégg ñuy wax diw cheikh la léegi incha allahu ñu yemandi foofu ndax egsi nañu fi ñu war a yëkkatee jotaay waxtaan bi leen jox dee incha allahu ci suite bi maanaam lii ñëwaat tegu ci lii nga andoon ci mbokk daara maas yi ci waxukaay wi fegoon ci ak Mansour wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu